salaamaaleykum mbokk internautes di saxo di suivre seen euh, tele bi di Dakar Actu TV donc ñu ngi leen di nuyu di leen sant ku ci nekk di ko jox wàccu waayam ñu ngi file nag ci bërëb bu sell bii di Touba donc ci jumaa ji euh, ku wax Touba nag wax dëkk bu sel ku wax Touba wax dëkku Serigne Touba ku wax Touba wax màggal gi donc moo tax rek ñu ñëw file ndax euh, période bi bu egsee euh, lu ci bëree bëri bokk na ci luy indil coono nit ñi wàllu weccet wàllu weccet ñu gis ne nag am na ñoo xam ne ñu ngi fiy yëngatu di di yombalal nit ñi tamit mbir boobu waaye bëgg nañu aussi ñu gën ci xuus xam nu Euh, boo xoolee maa ngi ci wetu ñi nga xam ne daanaka ñoom ay waylaago lañ suy watu jumaa bi la ñuy faral di toog euh, ñoom ñooy yëngu ceep ci loolu dañuy jéem rek xanaa gën a xuus ak ñoom euh, muy comprendre bu baax a baax nan la ñuy doxaleek li li nga xam ne moo soxal wàll wi kilifa gi nuyu nañ la. waaw ma lay jaar bu baax. est que mën nañ xam tur bi. Moustapha Sy laa tudd. Moustapha dañuy gis ne da ngeen di faral di wecci nit ñi fii donc ci li soxal wàllu màggal gi ñi di soxla souvent weccit Euh, nan la liggéey bi di demee la plupart. waaw yenn saa yi nag ñun ñoo ko indaale fi bi ñëw Touba. Uh-huh. nga jëlee dëkk bu indaale ko fi. Uh-huh. bu defee ñuy wecci gars ñun du ñu arrangé. Uh-huh. parce que bu ñu ko weccee day delluwaat si jumaa ji mais suñu ko weccee commerçant du ñëwaat du ñoom. moo tax eh, am nañ jafe-jafe si wàllu woowu mhm. en même temps tamit jumaa ji tamit ñu ko jege dañuy tere yenn saa yi dañuy tere quoi ku war côté jumaa bi mhm. moo tax ñu faral di toogee côté bii mhm. waaw loolu la quoi mais sant sant yàlla bu baax sant yàlla yéen weccet bi foo leen koy faral di jëlee yéen yenn saa yi si furu mburu yi mën a nekk furu mburu mën a nekk euh, n'importe quel euh, kii ah béréb ah mën na nekk euh, am ñoo xam ne borom bitig dañuy wecc borom ak commerçant yu mag yi ak yenn saa yi boo demee marché yi maanaam euh, mën a a nekk côté bu ne quoi. mën a nekk côté bu ne waaw. Mhm. léegi dañ koy dajal nag indi ko fii Touba fii. Mhm. bu defee di ci yéem a liggéey quoi. Mhm. waaw loolu la waaw. Euh, souvent ak ñi di wecciku est-ce que dinañ leen wax souvent lu tax ñu koy ñu soxla. waaw yenn saa ñoom dañ koy siyaare si jumaa ak si bërëb bi moo tax ñu koy soxla parce que ba ñëwee si biir kii bërëb bi. su amul weccet duñ mën a ziar moo tax. ñu koy jàng ñu ñu ñu leen di wecc quoi. Euh, ku ci wax nag wax ne ci ngeen di daan seen doole mais est que mun nañ am rek une idée euh, ci ñaata la leen di faral di dikkel bés bi ñaata ngeen ci am ci ci li nga xam ne tamit moom ngeen war a def seen poste. maanaam apport nag apport yenn saa yi xam nga rek liggéey bu nekk ak nu muy demee yenn saa yi mën nga xëy am 10 000 mën nga am quinze 000 mën nga am ba 35 000 sax yu mën a nekk waaye mu nga aju ci nit ñi daal ni ñu joxee. mais mën nga tamit xëy am 3000. këyul daal amul àpp daal. amul àpp waaw mais mel na ni aussi seen teewaay fii tamit facilital na ñu ci bëree bëree bëri wutum weccit bi. waaw waaw c'est vrai loolu loolu moom dëgg la moom loolu moom dëgg la parce que ñu bëri bu ñu ñëwee fii ñoo xam ne dañuy ñëw dañuy jógee seen dëgg sax ñëw udu udu weccit yóbbu ko yóbbu ko si maanaam ay ay commerçant yu ñu doon quoi.

mais nag sant yàlla bu ñu ngi waat rek ba tey ak suñu mbokk yi donc nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci wetu jumaa ji nga xam ne moo di Touba ñu ngi beneen mbokku euh, taalibe boo xam ne moom it mu ngi mu ngi file xanaa rek euh, ñu laaj ko turam ak santam. man Paate Mbaye laa tudd Paate. Paate depuis kañ yaa ngi Touba. man chaque année rek laay ñëw Touba. bu màggal gi jib see da nga fiy teew. comme ça bu màggal gi dese ay trois jours rek. waaw ma ñëw Touba. Euh, Pathé ngeen di yëngu ci wàllu yombalal nit ñi utum weccet bi parce que souvent day jafe Touba boutique boo dugg di jéem a wecceku dañ naan la weccet amul euh, ku soxla weccet rek day ñëw ba ci yéen ah ngeen yombalal ko ko nan la liggéey bi di demee noo leen koy doxale yéen. waaw ñun da ñun daanaka dañuy wecc kuwaale di indiwaale parce que Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni ah, ba am nay taalibe nest pas. mais taalibe bi lu ci ëpp moom seen Pastef ci sëriñ si lañ ko jëmee ak ak jumaa ji moo tax n'est-ce ñun ñuy wecc wala suñu weccet bu ñëwee ku ñu mën a jox euh, téeméer ñu am ci fukki dërëm ñu am ci fukki dërëm parce que bu dul lool daanaka doo ci am dara moo tax ñuy indiwaale suñu weccet bu dara disul nag lu dul yoroo weccet pour nga bëgg dugg ci jumaa ji di ko am moom day jafe doo ko mën a am. Euh, sànq mbokk bi mu ngi wax ne euh, yéen souvent yéenay indaale seen weccet waaye boo leen jeexalee. fan ngeen koy jëlee. bu ñu jeexalee dañuy toog di xaar rek bu ñu portaatee dara daal di dem ak moom rek parce que doo man a dugg boo duggee ñu dàq la loolu la boo duggee ñu dàq la te kenn du la dimbali pour jox la weccet soo jeexalee sa weccet ah nga toog xaar ba sa heure ñu bi jot loola foraat nga daal di dem ak moom. boo leen di wut weccet bi ndax da dafa am euh, ñoom it ñi ñi ñi ngeen koy wute dafa am som buñ ci am wala nu mu demee. fañ koy wutee. non loolu moom suma ko cee gis moom suma ko cee jël quoi waaw man nag. maanaam tey tey dañ gis ne ñi koy wecceeku am di ngeen ci am fukki dërëm ba maanaam. bi maanaam cent franc. waaw am na ñoo moom du leen neex sax mais man moom dama la naan ñaata laay jël ngeen ma jëlal temps ma wecc la suma ma ma wecc la su ma wul man la demal. mais man pour ma dagg te waxuma la ko moom duma ko def moom. ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp. ci affaire bi non tuuti ku sañoon moom yalwaan neexul ku sañoon moom da nga koy bàyyi gratuit xam nga parce que dafa métti doo nelaw doo tala songu des fois doo lekk xam nga du milieu yëpp nag mais léeg-léeg da lay dal xam nga kon déjà métti na gisuñ nañ ci suñu bopp tuuti ndax li ñu ci yàlla wërsëgal ah ñu ngi ciy suturu tey ba ëllëg mais gisuñu ci suñu bopp nañ ci war a gis suñu bopp. Euh, yan jafe-jafe ngeen ci faral di jànkonteel. ci ci ci liggéey bi. ci liggéey bi waaw xam méttiwaay bi rek. méttiwaay bi ba pare la nga ci ñaan yàlla doo ko ci am xanaa looy suturoo rek comme ni ma la ko waxee waaw parce que buñ la gisee dañu yaakaar ni yéen a ngi am àdduna ak li ci biiram fekk na boobu doo ko ci am xam nga 50 000 boo ko wecci woon boo ko wecc ko bu sew téeméer bu ne fukki dërëm loolu kon ñaata nga ci am daanaka 10 000 nga cay nga cay tegtal waaw kon xam nga ni daanaka gis si suñu bopp euh, fan ngay faral di bàyyeekoo di ñëw tuuba man Tiwaawan laa dëkk. Tiwaawan taalibu Seex laa waaw. Mhm. dëkk maam Seydi ci Awa Balla kooku laa rek liggéey bi yemul ya rek ci màggal gi ndax am na yeneen bërëb yoo koy fu mel ne wala Touba gi wala bu yooyu jàllee ma jéem a marché yi wala ma toog ci territoire yi bu wàcc jotee ma dem ñibbi sama kër am ma jox ko sama bi ngay bañ. bi ndax responsabilité yor ay famille yor jabar mënoo parce que di nga ruus ko la laaj te joxo waaw bu don da ngay dem am téeméeri di nga dem kay am téeméer ñu bëgg moom waaw ñu ngi lay jaajeufal ci cadeau yi jërëjëf Dakaractu mu lay remercier bu baax yalla nañ ko téwé na ngeen di déwal barka yonent jerejeuf mbiru mu wéccet mu don lo xamné ni événement ba événement donc day don lo xamné day soxal ñi nga xamné ño di talibé yi ñew fi né euh, ci Touba di magal ci euh, ñi nak tok ngeen gis leen euh, ci sama ginnaw ak ci alentour bi di ay ñi ci ëpp ay ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñeneen ñi di ay waylaago euh, ci li ñu yëngu nag mooy dimbali ñi nga xam ne ñoo di euh, taalibe yi fidèle yi ñu mën a am weccet weccet yombaleen waaye nag dañ ciy am dañ ciy am donc ku nekk ak la nga ciy soxla am na ñoo xam ne nee nañ ni ngeen koy seetaane ci image yi donc ñoo xam ne nee nañ duñ laaj dara dañuy joxe bu ñu leen joxee rek waaw ñoom ci ci loolu ñu leen jox ci la ñuy yam am ñoo xam ne dañuy fixer prix loo boo indee 1000 francs am na luñ ciy am boo indee 5000 am na lu ciy am ainsi de suite donc mu ngi noonu donc file ci Touba euh, ci waajtaayu màggal gi euh, di seen mbokku El Hadj Moussa Beye fi Dakar Actu ñu ngi leen di jaajëfal. salaatu